الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي وفقنا للصيام طاعة للملك العلام ووفقنا للقيام سنة للنبي محمد عليه السلام الحمد لله الذي أضلنا بليلة السلام والقدر والإكرام الحمد لله الذي كتب على نفسه البقاء وكتب على خلقه الفناء وجعل الدنيا دار الفناء والآخرة دار البقاء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين انقضى رمضان وبقي الرحمن أيها المسلمون أيها الأحباء الزمن يجور والحياة تسير والسفر طويل والزاد قليل وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لن أعود انقضى رمضان وبقي الرحمن الرحيم انقضى رمضان وبقي الإيمان انقضى رمضان وبقي القرآن انقضى رمضان وبقي العبادات انقضى رمضان وبقي البر والإحسان انقضى رمضان كأي شيء ينقضي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبدا mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi kenn alfardu samad moom muy jubluwaay bi moom mi jurul kenn te kenn juru ko te nekkul nawle ci kenn ñu ngi koy sant moom subhanahu wa taala moom mi ñu defal tawfiiqu ñu fekke weeru mag gi wi ñu génn muy weeru koor ñu dugganti ci imaanan waxtisaaban comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee ci gëm yàlla ak sàkku tiyaaba ñu ngi koy sant moom subhanahu wa taala ci fekke gim ñu ko fekkeloo ba boole ñu suñu fekkee fukki fan yu mujj yu ñu doon wër guddi gii di guddi salaam di guddi leetu qadri di guddi teraanga ñu ngi koy sant moom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni mooy ki fiy des moom mi nga xamee ni moo sàkk lépp te lépp lu mu sàkk utal na ko àpp bal tusiruuna alxayaata dunia ñun kay ñoo nekk ci àdduna bi kër kër yi jël àdduna bi poñetu àdduna rek jàpp ni ñu fii la ñuy sax te xamuñu ni wal axiratu xayrun abqa alaxira génnu jëm mooy li gën lépp lu ñuy kër këree ka sàkku fii ci kaw suuf te mooy kër gi nga xamante ni mooy kër ga fay des ñu ngi koy seede ni moom subhanahu wa taala amul kenn kuñ ko war a bokkaaleel di seede ni suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i sahabaam ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba bis penc di taxaw mbokk yi ci yàlla dund gii ñu dudd muy dund àdduna gii dund la guy dem rek te kenn ci ñun xamul kañ la àpp wa laajoon nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu jibril mu ne ko yow mii di ma ko laaj ak man mii nga koy laaj ñoo ci bokk yem xanaa kay xam nañ ay mandarga yuy wane ni àdduna baa ngi jeex mbokk yi te tukki wi ñuy tukki tukki wu gudd la waaye tukki wu gàtt la tukki wu gàtt la ndaxte kenn ku nekk ci ñun ab àpp rek nga fiy dund kon yóbbal ba yóbbal bi mën naa bëri comme yóbbal bi mën naa mën naa néew doomu aadama dund na lu néew waaye yóbbalam bëri lool waaye doomu aadama dund na lu yàgg ci àdduna su fekk yóbbalam lu néew la ci ay xasanaat mbokk yi ci yàlla nañu xam ne de mbindeef bii di bis saay buy xëy day wax ak ñun lan la ñuy wax ay yéen doomu aadama yi xam leen ne man mii di bés maa ngi ñëw ni di fenk seen kaw te xam leen ne lépp lu ngeen def ci sama biir ëllëg yowmal qiyaama dinaa ko seede te su ma xase ba won leen ginnaaw du ma ñëwati mukk lu dul yowmal qiyaama di ngeen may gisaat kon na ngeen profité ci man ngeen def lépp luy xeetu jaamu yàlla mu nekk seen yóbbal mbokk yi lii di weeru koor de dem na waaye ndax borom bi subhanahu wa taala bi sàkk weeru koor mu nekkoon ngëneel ci ñun ndax borom boobu dafa jeex déedéet arrahman moom borom bi subhanahu wa taala di yërëm bépp mbindeef ci kaw suuf moom da ba tey mooy ki fi des arrahim moom borom bi subhanahu wa taala mi yërëm ña ko doon góorgóorlu di ko jaamu fii ci kaw suuf ëllëg yawmal qiyaamati ba tey moom moom fiy des mbokk yi weeru koor dem na wa baqiyal iman waaye ngëm yàlla ba tey mi ngi fi mbokk yi yàlla moo ñu defaloon xéewal ñu fekke weer woowu ngir ñu defaraat ci suñu boobu gëm yàlla waaye yàlla moo ñu defaloon boobu xéewal ngir ñu mën cee defaraat suñuy jikko profité ci def ci loo xamante ne moo ñuy yóbbal ëllëg yawmal qiyaamati ci yiw mbokk yi lii di weeru koor de dem na wa baqiya alquranul karim weeru koor dem na waaye alquran mi ngi fi ba tey mbokk yi ni mu ñu taxay woo yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man qaama ramadana nga taxawaloon guddig weeru koor yi di naafila di jàng alquran alquran jooju de ba tey mu ngi fi ñu war di ko jàng di ko settantal di ko jëfee mbokk yi inqadar ramadan weeru koor jeex na wa baqiya al ibadat waaye xeetu jaamu yàlla yépp ba tey mu ngi fi des ngir ñun ñi nga xamante ni ñooy jaamu yàlla yàlla sax ngir ñu jaamu ko inqadar ramadan mbokk yi weeru koor de dem na waaye des na ba tey lii di rafetal jëmale suñuy wayjur rafetal jëmale ci suñuy dëkkandoo rafetal jëmale ci ñi nga xamante ni ñooy way ñàkk yi mbokk yi képp ku dund weeru koor gii xam nga le moo nekk ci xiif képp ku dund weeru koor gii kon war ngaa mën a xam ni kon am naa ay dëkkandoo yoo xamante ni ba léegi si bu ñu añee du ñu reer wala bu ñu reeree du ñu ndekki ngay rafetal jëmale ci ñoom mbokk yi weeru koor da jeex na comme li lépp ci kaw suuf di jeexee dañu xam ne nag fa ñu jëm mooy fa nga xamante ne fa ñu yàlla di dajale ëllëg ñun ñëpp te inna allaha la yuxlifu miaad boobu rendez-vous kenn du ko rate mbokk yi képp koo xamante ne de yaa ngi doon jaamu lii di weeru koor di góorgóorlu dem ci jàkka ya di góorgóorlu def lépp luy xeetu jaamu yàlla xamal ni weeru koor boobu day dem na bu dee moo tax nga ko doon def moom da dem na waaye képp koo xamante ne nag yàlla subhanahu wa taala mi ñu xéewale weeru koor mi ngi fi ba tey moom yàlla subhanahu wa taala xayyun laa yamuutu abada mbokk yi xasan xasanul basri dafa wax ci wax jëmu ni laa yakunu li fi'li lmumin ajal duuna al mawt summa qaraa wa'bud rabbaka xatta ya'tika alyaqin xasanul basri nee na doomu aadama yi ak jëfam ju baax da cee war a sax ba ba dëgg di ko dee di ko di ko fekk si ba ba muy tasanteeg dëgg mooy dee ginnaaw bi mu waxee wax ji ba pare mu jàng aaya bii borom soo taal wax ni jaamul sa boroom ba keroog lii di dëgg muy dee di la dikkal noonu la ab jullit war a nekkee ci kaw suuf ndax kenn xamul kañ la kenn xamul fañ la kenn xamul naka la mbokk yàlla suñu boroom dafa bëgg ci ñun def ci ñun ak yërmande ba tax mu jël ci sha'airu zamaniya yi ak zamani ak ak sha'airu zamaniya ak sha'airu makaniya dëxañ ko suñu dund xool leen ci weer yi ñu génn ñu ngi génnoon ca rajab rajab nekkoon weer woo xam ne weer wu tedd bu bari woon ay ngëneel yàlla doxañ ko suñu dund ngir ñu ci profité muy weer woo xamante ne ci la ñu wàccee julli nga war a xam lan mooy la mooy doyab julli taxaw ci ngir boo ca génnee nga defaruwaat nga génn ci rajab mu dugal la ci beneen weer muy weeru shaabaan muy weeru jàngkatu alquran nga war a nekk di jàng alquran di waajal weeru màgg bi nga xam moom lañ génn ñu génn ci shaabaan yàlla tegalaat bi beneen weer boo xam ne weeru bëri gën a li muy weer wi ñu génn muy weeru koor xoolal noonu lañu génnee weer woowu di ramadan yàlla tegalaat bi beneen weer muy weeru shawwal muy weer woo xamante ni yàlla defal na ci ay ngëneel yoo xamante ni def ko ci yeneen i weer naka noonu tamit da yàlla jëlaat ginnaaw bi ñu génne ci weeru koor mu tegal ñu lii li nga xam ne mooy aydul adha muy weeru aj mbokk yi yàlla mooy ki namm suñu yërmande te lii mooy dina islam aqulu ma tasmaun wastaghfiru llaha li wa lakum wa li saa'iri muslimin kulli zanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala di julli di salmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weeru koor mbokk yi jeex na ana lan moo war a xew ginnaaw weeru koor maada baada ramadan mbokk yi amoon na jaamu yàlla boo xam ne mooy bi gënoon a fés ci weeru koor moo nekkoon julli mbokk julli taxoon ñu doon dajaloo ci néeg bii di néegu yàlla kenn ku ci nekk di jàkkaarloog sa moroom sa xar kanam leer nañ nga yéene sa bopp la nga yéene sa moroom béréb bii la ñëpp dëgg maloon ci weeru koor bu ñu jullee pare ku nekk di saafante sa moroom loolu daan jur ak mbëggeel ak cofeel suñu biir ci bërëb yi meet ci weeru koor ci lañ doon dajaloo ñépp di daw di jëm ci jàkka ya di jàkkaarloog benn boroom mooy allahu subhanahu wa taala bërëb yi mbokk yi lañu dawoon ñu ñépp ci weeru koor bi bi ci jëfe benn arkaan muy julli di ko jëfee ni ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam daan jëfee comme ni waxoon ne sallu kama raaytumu musalli kenn doonul julli nu bokkul ak ni sa morom doon jullee benn jullit moo amoon mbokk yi ci béréb bii wala béréb yii la ñu doon dajaloo ci weeru koor yi di fa jàng benn alquran muy alquranu yàlla amul beneen jàng bu ñu doon jàng lu jàng alquranul karim mbokk yi ci béréb yii lañ doon bokk di sàppe sàppe soo xamante ni doo ci xàmmee ku am doo ci xàmmee ku ñàkk doo ci xàmmee mag ndaw ñépp bokk ci benn sàppe jàkkal la benn borom muy subhanahu wa taala mbokk yi ci bërëb yii lañ doon dëgmal ci ci koor gi di jàkkaarloog benn xibla mooy ca kaaba ga mbokk yi julli googu nag yàlla dafa am lum ci def ci suñu dund lii di julli farata yi ci xadisu abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu dafa wax ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na taxtariquuna taxtariquun fa ida sallaytum subh gasalatha thumma taxtariquuna taxtariquun fa ida sallaytum zuhr gasalatha thumma taxtariquuna taxtariquun fa ida sallaytum al-asr gasalatha thumma taxtariquuna taxtariquun fa ida sallaytum al-maghrib عصرتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا neena julli yi nga xamante ne moom la yàlla farataal ci yéen mu julli juróom yi saay boo jullee waxtu jëm ci beneen waxtu nee na am na fa ay rëcc-rëcc yoo xam ne yaa ngi ko doon def ci bàkkaar loo xool la warul xool loo dégg la waruloon dégg wala ngay nekk sax ci bërëb yoo xamante ne war a foon nekk nee na waxtu booy ñëwaat waajal ba ngay waajal dem sa jàkk ja julli ji nee na noonu la yàlla di fóotee seen bàkkaar ba mu set ci diggante waxtu yëpp nee na noonu la ko yàlla di jàppee ak jullit bi di jàppee ak jullit bi ba ba ngay julli gee nee na boo julli gee ba pare tëdd ngay def te boo tëddee nee na kenn dootu la bindal bàkkaar rufi al kalaam rufi al qalam war yoon bi saa sallam nee na ñii de moom teggil nañ leen lii bind bàkkaar yi teggil nañ leen ko mu bokk ci ñooñu koo xam ne dafay nelaw kooku kenn du ko bindal bàkkaar boobu muy yeewu ak loo mën a gis ci biir gént ga mbokk yi xanaa du loolu mooy li yonente bi li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni inna alxasanaat yuzhibna sayiat farata yee ngay def moo lay fompal lépp loo xamante ne mooy bàkkaar yi nekkoon ci diggante bi yoo doon def te julli loolu mu lay defal di la fompal say bàkkaar noonu la war a defaree sa jikko ndax yo borom subhanahu wa ta'ala mu wax ni inna salata tanha anil faxsha'i wal munkar booy julli li nga war a xamee yow muy julli ni sa julli ñu ngi koy nangu wala nanguwuñ ko nee na delluwaatal say jëf ginnaaw bi nga jullee ba noppi bu dee da nga julli ba noppi delluwaat ci wax yu caaxaan yi xoolaatal sa julli bu dee da ngay julli te bërëb yu caaxaan yi yaa ngi koy dem ba tey xoolaatal sa julli nee na julli bu fekkente ne lu dëggu la lu ñu nangu ci yow la nee na da ngay jomba def après lépp loo xamante ni luy jur la alfawaxis wal munkaraat mbokk yi ginnaaw farata yooyu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na julli sunna yoo xamante ni mu ngi toll ci fukki ñaar fukk ak ñaari rakka muy ñeenti rakka yooyu julli laataa tisbaar ñaar sëlmal ñaar sëlmal ak yeneen ñaari rakka yooyu julli ginnaaw tisbaar ñaari rakka yooyu julli ginnaaw timis ak yeneen ñaari rakka yooyu julli ginnaaw gee ak ñaari rakka yooyu julli laataa nga julli fajar muy fukki rakka ak ñaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man sallat na tey achara rakaatan tatawwaan coobarewu de du force fi yawmin wa laylatin bana allahu lahu bihinna baytan fi ljanna yàlla dina la tabaxal ëllëg kër ci biir aljanna ci fukki rakka ak ñaar yoo xamante ni da nga ko coobarew lu bokk ak farata yi li lay defal mbokk yi naka noonu it mbokk yi weeru koor jeex na waaye ba tey koor jeexul ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na wax ci xadis abu hurayra mu ni man saama ramadana thumma atbaahu sittan min shawwal kaana ka man saama dahra kulla képp koo xamante ni woor nga weeru koor ba mu jeex nga toftal ci juróom benni fan juróom benn fan yoo xamante ni nekkul koor gi day jeex rek waxul fa atbaahu waxul wa atbaahu summa atbaahu la wax mooy mën nga koo étaler ci biir weer wii di weeru koo kori muy shawwal juróom benn fan yoo xam ne noonu la neex koy wooree ci biir ci biir weer bi kooku de dafa mel ni ku woor at mi yépp ndax weeru koor weer la te yàlla buy fay alxasanatu bi ashri amsaaliha lay fay lenn loo def ci lu baax fukk la la koy fay benn weeru koor bu la yàlla nangul da koy multiplier par dix muy fukki weer kon at mi ñaari weer a ciy des ñaari weer yi bu fekkee da nga woor juróom-benni fan yi juróom-benni fan six multiplier par dix soixante la lay jox boo ko divisé par deux mu jox la ñaari weer kon muy ñaari weer yu complété at mi mu tolloog atub lëmm kon mbokk yi lu jafewul la inna diina yusrun loolu yoon saa salaam wax nee na din diina lu jafe la lu yomb la lu yomb a pratiquer wala yushad hada din ahad nee na kenn ku ci nekk yéen nag yaa koy jafel bu mujjee teg sa kaw yal na yàlla yombalal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qumu ila salati yarhamukumullah